dañu ñëw tey fii ci Touba euh, dellu si gannaaw bu gungee président de la République Macky ci gane si fi ñëwoon def si ci Serigne Mountakha Bachir mu koy ñaanal mu yàgg fite te lool tey ñu dellu si en tant que ministre mais en tant que talibé aussi ñëw siyaare euh, kilifa yu baax yi nekk ci dëkk bi ñu gannaaw bu ñu siyaaree sëriñ Mountakha Bachir ñu siyaare suñu bunt ci yoon wi muy sëriñ Cheikh Mbacke Bombali ñu ñëw fii ci sëñ Bass Abdou Khadre porte parole euh, yoon wi doon ko siyaare euh, moom it ci bés bi ma saw ko ci coono yi biral ko aussi suñu contribution bi xam indil nañ ko sëriñ Mountakha Bachir muy cinquante mille masques yoo xam ne dañ ko ñëw barkeelu pour euh, doxe ndigalu sëriñ bi pour que ñun ñëpp di ñëw fii mën a takk seen masque ba yàlla musal ñu ci feebar bi ba bu ñu jógee ci màggal gi feebar bi jeex fee jàpp